itam dinañ fa fekk oustaz Iran euh, Ndaw euh, balaa ñuy sori ci ligne bi oustaz nuyu nañ la. Euh, sëñ Mountakha ñu ngi lay delloo nuyoo di nuyu waa ñuy déglu si bi ak di ko seetaan di leen ñaanal jàmm tur bi nga xam ne moom ngeen am muy jàmm ji info yan yàlla defal jàmm jooju ci àdduna bi yëpp Euh, jërëjëf euh, oustaz euh, daanaka mën nañ leen wàllum actualité saa dañ ciy faral di waxtaan muy yaakaar naa muy xew-xew xew-xew tabarkàlla di xew-xewu lislaam muy màggal poroxaan bi nga xam ni ñoo ngi koy waajal ci njiital sëriñ Muntaxa xalif général des mourides muy soxna maam jaara Buso jaaratullahi oustaz mu mel ni rek ci jamono xam naa foofu la ñuy tàmbalee jotaay bi muy jotaay boo xamante ni jamono tey yëngu na ci comportement soxna yi ci comportement solin bi ci comportement xëcc mbooloo ci comportement itam woote ci jamono oustaz Iran lan nga mën indi tey ci histoire bu ñuy waxee soxna Mame Diarra. waaw xam nga jërëjëf ginnaaw bu ñu ñaanalee <clears throat> sunu kilifa Serigne Mountakha yàlla may ko mu dund lu yàgg ànd ak wér. amiin liggéey bi nga xam ne mu ngi ci kanamam di liggéey maamam mu def ko nu gën dàq ni mu ko bëggee. Euh, ñaanal itam ñu jëm poroxaan ñëpp yàlla sàmm leen euh, ñu dem ci jàmm delluwaat fa ñu jóge woon ci jàmm mhm. waaye muntaxaa xam nga li ma ci bëgg a wax waaw <clears throat> mooy alquran dafa am lu mu wax mhm. mooy wa in tanazaatum fi cheyin farudduhu ila allahi wa rasul wallaahi ngeen dematee ba jamono jaxasoo da di bàyyi la nekk ci dellu ci yàlla ak yonent bi wallahi wallahi mu jeex waaye xam nga xale dafa am lu ñu génne bees mooy bu muntaqaane nañu roy ci maam jaara wala maam faawa wala maam kumba wala maam nangam ñu ne ah waaye ñun seen jamono la ñun du suñ jamono wallahi wallahi d'accord na waaye kon ñoom it nañu nangu ne kon jur ku baax dootu leen yomb ndax ñooñu fi jur sang yi wallaahi te roy roy ku baax bu weesoo kon jur ku baax dootu yomb. wallaahi. maam jaara nag man euh, école laa ko def école. Mhm. école la parce que seetal li ko yàlla defal bul defee ne ay pexe la wala ay nas la wala ay dugal. Mhm. waaye maam jaara li mu am def ko liggéey. wallaahi. yemul ci liggéey ba daf ko sellal gis nga Muntaqa dinaa la wax tey lëf mhm. da am ñaari soxna wala ñetti soxna sa kër ñuy sëy am ko ñëpp soupçonné contre ko ne kii baaxul nangam nangam wallaay ndeysaan am ku ñu ca tagg ne moo baax kañu ne baaxul jur fañ a baax xam nga lu tax mhm. moom la muy def yàlla tax na te sellal na ko ña ca des dañ doon ngistal xëy na moo tax. waaye liggéey yomb na. liggéey yomb na mun muntaxaa liggéey yomb na. wallaahi waaye sellal ko moo jafe. du wér soxna maam jaara boo seete waaye nag diggante bi mu nekk kenn mënu ca nekk di mel neneen lu dul ni mu mel. wallaahi wallaahi. boo xam ne baay daara. yaay daara. borom kër daara. foo mën a jëmatu. amul fooy dem allo allo. wallaahi wallaahi. waaw ah, xam nga gannaaw téléphone la il may xam ndax ñu ngi ci ligne bi am déet. bien sûr ah, mhm. Ah. Mhm. Mhm. xam nga yooyu bu amee. <coughs> bàyyi daara. yaay daara. sa borom kër daara mënoo génn daara. ak a wér ak a wér. imaam daara li mu liggéey yëpp daf ko sellal. li muy ne ci daar yi xam nga seize ans fukki at juróom-benn ku ko am. wallaahi. diggante bi nga mokkal ci alxuraan jàng si téere yi ba pare nekk ca daara ja nekk ca waañ wa nekk ca bojjukaay ba nekk ca teen ba di roon boole lool ak sa service wuy jur mm-hmm. nga jógee fa ñu yóbbuwaat la ci beneen école bu mel noonu tegaat ko ci loxo maam Mor Anta Sali Mbàkke mu fekkaat fa daara mm-hmm. fekk fa teen ba fekk fa sayaan ya fekk fa mbojj ma mhm. fekk fa soq ba fekk fa fóot ma war a nag jox yàlla li mu moom te dara du ci manqué moor anta daram du manqué njaboot gi dara du manqué kooku moo tax talu loon dara wallahi wallahi moo tax gis nga dem poroxaan euh, sëñ Muntaxa mhm. wallahi dem poroxaan xam nga luñ fay wuti mhm. jëli leçon jëli la man loolu gëm wallahi wallahi kuy dem poroxaan di jigéen rek jëlil leçon luy loolu mhm. nga ëmb sa doom mhm. ni ëmb métti mucc métti xale di judd ñu nodd ci nopp ndey joor lekk am ci càmmoñ ne soxna jaara buso bésu màggal jot na poroxaan sore na mu mhm. mu ngalaw wala mu tàng wala mu naaj lu mën a xew bis boo xëyee fii dootoo gis oto ku bëgg a tukki jour boobu loo am oto. wallaahi wallaahi ndeysaan. ñu jógee fi dem poroxaan nga jël doom boobu nga ëmboon nga boot ko yemoo ca nga dagg paas. ca wuti poroxaan yemoo ca nga dem rangaat. ba yëgg ci kaw rawdu maam jaara bu sa nga sukk ci kanamam jël turandoom uuf ko ñaan sa soxla ñaanal ko mhm. boo fa jógee war nga faa jële bind bu rëy mooy soxla sii tëdd di jigéen lan la def ba ma ëmb doom ñu tuddee ko ko lan la def ba ma rang ko lan la def ba may ñaan ci barkeem ñu ne daa amoon góor gu yor Sëriñ moor Anta Sali Mbàkke wallaahi la ko war ca moom def ko na ko def li ko war ci diggante moom boroomam moom la ko yàlla fayee bis bi ngeen ne su ma delloo su may ñibbi du ma jënd orange. Mm-hmm. du ma jënd mandarin. Mm-hmm. du ma jënd uur du jënd xaal du jënd pomme déedéet sama séri ca maa ngi koy jëlee ci soxna jaar. mooy su ma delloo. Mm-hmm. lu ma doon def ci lu baax danaa ko xeeb. lépp lu ma doon def ci safaan dinaa ko bàyyi. lu ma jàppoon sama borom kër dinaa ko yokk. lu ma ko xeeboon danaa ko moytu. lu ma taxawoon njaboot danaa ko yokk. lu ma sàgganee njaboot danaa ko moytu. lii muy siri te ko dem poroxaan te soxna jaara. allahu akbar te dëgg la. waaw <laughs> kon sëriñ bi loolu la yow itam. dëgg la waaw lii rek nga fa mën a jëlee. wallaay xam nga ziar muy firi ci arab. waaw bismillah du ziar de. Mhm. mu ngi tudd ziyaadatu ziyaadatu. Mhm. muy firi ndo dolleeku. Mhm, dolleeku muy lii ma la wax bu tiimee soxna su baaxee noonu. waxuma dara man sax waxuma dem poroxaan waaye am na lu war a tax nit ñi dem poroxaan mooy lan mm-hmm. Cheikhul Xadim nee na ku ñëw fekk ma fa oh Allahu akbar soo ma fa fekkul boo toogee tuuti ma fekk la fa dajeeg sëñ Tuubaa ci bari jar na lu ne wallaay ndeysaan wallaay am de wallaay ndeysaan jar na ko de soo ñëwee fekk ma fa soo ma fa fekkul boo ne jàng jàng mooy boo toogee tuuti hmm? ma fekk la fa Allahu akbar kon mën nañ ne dajekay sëñ Touba mooy poroxaan. poroxaan dëgg la. Mhm. ah kon nañoo wax mooy poroxaan. wallaahi. nga gis jigéen jooju kon boo fa jógee nag sëñ Muntaxa. te mhm. yokkuwoo ci sa jikko. yokkuwoo ci sa yiw. Mhm. yokkuwoo sa jaamu yàlla. yokkoo ci fonk sa jëkkër. yokkoo ci bëri yërmande. jàppal ne da ngaa sonni mais moo mais jëlee woo fa sëriñ. dëgg la wallaahi. wallaahi sëriñ gis nga maam jaara école la. dëgg la demal ci yow da liggéey ci internet xam ba da nga liggéey. léegi seetal internet bi. ndeysaan. vérifier ma rek boo paree nga vérifier ma. <laughs> ci monde bi ndax am na benn jigéen bu am bés bi maam jaara am. wallaahi ak a wér li nga wax. dama la dama de. <laughs> wallaahi ak a wér soo gisee nag ma yónnee vocal ma gis naa ko soo gisu nag ma ne gisuma. ah wallaahi dëgg li nga wax dëgg la. bis bu mel nii ci réew mi ñuy wax Sénégal rek la am. lay dëgg jigéen ji ñuy wax maam jaar rek la mu dëkk ca Poroxaan ak na mu sori fu ne doom aadama jógee fa war ngaa xam ne kii fooyewul daaraam. Mm. fooyewul wuy juram fooyewul Maam Mor Anta Sali fooyewul yàlla. wallaahi wallaahi. waaye ku leen fooyewul kenn du la fooye. wallaahi mais oustaz li ma ci li ma ci yem euh, li ñuy wax ci ci zaahir ci jamono. 33 euh, fan fanweeri at ak ñett rek daanaka ci jamono. waaw xam nga <laughs> xam nga eh, xam nga dañuy wax ne eh, muntaxa mhm. almaalu bi falsafati yi ndeysaan laa bi kasrati yi wallaay ndeysaan dañu ne nit am na cent mille francs dëgg la dàq dund borom cent millions wallahi maam jaar dafa amoon kilifa allahu akbar wallahi dafa am kilifa mhm. amul benn porox ndoll bu mu mën a jaar maam jaara loo soxor soxor ak lu coow li bëri bëri déggaloo ko lenn lenn lu mu wéetil maam Mor Anta Sali baa lu mu ko bañal hmm. baa ay wuy juram hmm. baa mu def taalibe yi safaan déedéet lépp maam jaara xooj ci la xooj wallahi wallahi ah. wallahi wallahi te te oustaz am na euh, oustaz nga baal ma am na benn jàngale oustaz bu ci am ci biir oustaz ndax loolu yaakaar naa sax daf ci am solo doogu ma waaye euh, li ñuy wax ci jamono ba nga xamee ñu ngi ko war a dem euh, war koo yóbbu ci kër borom boroom këram mais li mu bu mu sëgee ubbi kaamil bi mu wax dafa xamal ni euh, leen rek ma metti ñu ne ko xanaa fa nga jëm da nga faa mu ne déedéet mais xam ni yonent yi dañu wax ni yonent far na amatul ci jamono waaye bu doon loola fa ma jëm danaa ko wàcce ci jamono waaw waaw xam nga <laughs> trente trois ans yi nga wax dinaa ñëw sa question boobu waaw <laughs> trente trois ans yi nga wax waaw <laughs> ne daf ko dund ak li mu ci liggéey ndeysaan dellul ci suratul qadri akbar inna anzalnaahu fi laylatil qadri mhm. wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri xayrun yàlla jël genn guddi rek génn guddi rek oh. mu gën junni weer allahu akbar mooy fanweeri ati maam jaara ak ñett moo gën téeméeri junni at nga koy déggee tëttëtt waaw guddi laa wax génn guddi gën junni weer lay di sax 33 ans yi maam jaar gën na fanweeri junni at. wala fanweeri milliards yi at ak ñet li sax allahu akbar. parce que amul porof ndoll. <laughs> dëgg la. su nga bi mu ñëwee. loolu nga wax. waaw. Euh, mook mook soxna Anta Ndiaye. walaay ndeysaan. ñoo doon xas. maam Anta ku baax la. lay ndeysaan. parce que ci doxam ak itteem ci la maam jaar ñëwee ci loxo maam Mor Anta. walaay ndeysaan. ndax gis na ne góor yàlla yëpp a ngi koy xëccoo. mu ne kii de Mor Anta laa ko yéene woon. waaye bi ñu ñëwee xam nga euh, dafa jaadu. Mm-hmm. jàmm jàmm ji info bu ñu demee Porokhane. wallaay ñu toog ne waa gaa yi nu ñuy tëralee. dëgg la. waxtaan wolof day wax ne yéen ko ci xaddeen dañuy yëgu. dëgg la ak wér. <laughs> waaw bi ñëwee ba yegg nag bañ toog benn bés la ko maam Anta ne quoi soxna jaara man de dama am lu ma gis buur yi di ko def mooy xas. mu ne ko xas mu ne ko du xasu xasante de waxante lu ñaaw de muy buur bu ne bu waree dajeeg moromam mooy signature contrat rek moom laa la ko mën a firi xale yi war a seetaan site bi. wallaay ndeysaan mooy signature contrat. xam mm-hmm. nga mbër mu ne danaa danaa la def nii danaa la door nga daanu. Mm-hmm. ki ne danaa la euh, may. wallaay ki ne danaa la door balaa jant bi so. loolooy xas. waay wallaay tëkkonte. <laughs> waaw. mu ne ko nag damaa bëggoon maa yow ñu seet lan la ñuy jaayanteeg yàlla. ku ne seet lan la war a liggéeyal Mor Anta ba jur fi doom bi mu bëgg yow ban façon doom nga fi bëgg. lay ndeysaan allahu xam nga marchandise mu ne am na njëgam. wallaay dëgg la wallaahi. doom bi nga bëgg na wax man na njëgam muy marchandise mi nga bëgg njëg boo bëgg a joxe. allahu akbar. maam maam maam jaar ku yeewu la ndax boroom xam-xam la. wallaahi wallaahi. mu ne ko soxna Anta. ginnaaw yow yaa ma gën a miin loolu yow xasal ba pare. allahu akbar. maam Anta ne ba mu yàgg ni ko dinaa fi jur jant ak weer. oh <laughs> maam jaar ne dënn ba mu yàgg ni ko ah jant ak weer na lu ko tiim yombatul may ma ba suba. <laughs> ma xalaat. allahu akbar. ba mu demee mu commencé bàqara. moom hmm. maam jaara bu sot. <laughs> allahu akbar. Eh, Muntaka. kéemaan la. Sénégal buñ ci ñaanu loon. ndeysaan. Sénégalais buñ soxoru loon. Hmm. dama ne la ku sëgg for jamaa. allahu akbar ak li ñu yàlla may ci ñu baax amul fenn. billaahi billaahi. lay dégg déglul de li maam jaara bëgg a def. waaye itam mun taxa àdduna fi jar doyee di amul. wallaay dëgg la. lu fi jar yàq sa personnalité amul. wallaay dëgg la wallaay. maam jaara commencé ci bàqara. alif laam miim daalikal kitaab. di jàng di jàng di jàng di jàng waaw. ba yegg ci. Hmm. laay bi yàlla wax ne yonent bi. waaw waaw gannaaw yonent bi saye tëj na yonent. oh. waaw. <laughs> akbar. jeex na. ah leçon ñëw na de wallahi ndeysaan. foofu mu ne foofu nag la ronko ñoom tuuroo. oh allah akbar. fi yàlla ne dootu mooy fi yonent bi kasse naa lépp. allah akbar jeex na. Mhm. mu jooy. bi mu xëyee maam Anta ne ko waaw lañ waxoon foo ca tollu. mu ni ko man de dama doon jeex ci alquran ndax yonent jeex na wala jeexul mhm. waaw waaye ma yegg ci muhammadu rasulullah ba fële wama wa ma kaana muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatima nabiyina lay ndeysaan ba ma yeggee ci wax xaatima ji rek sama naw gi ne rës oh. mooy fi yàlla ne sayee